jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre di ñu bàyyi xel ci wasaare làmb saa su nekk rek ñu koy defee nii bu fekkee ne soxla am na wala am ay kàddu yoo xam ne bëgg nañ ko rotal wala am jàngat boo xam ne bëgg nañ ko def ak yéen dinañ ñëw daal di jàkkaarloo ak yéen waxtaan ak yéen ci ay point tey nag mbokk yi waxtaan wi li ko sumb mooy li nga xam ne mu ngi commencé lëmbee réseaux sociaux yi nekk ay kàddu yoo xamante ni nii monsieur le ministre matal Ba moo ko rotal kàddu yi nag. yàgg na yàgg goo xamante nii mën nañ ne tiirub ñaari at la boobee ba léegi nii mu nekkoon ci benn contexte bu spécial ba waraloon mu kàddu yooyu kàddu yooyu nag waral ñu baree baree bare di ko ci ŋàññi ba jàpp ne Matar Ba ku bañ làmb la bëggut làmb bëggut làmb avancé dañuy ñëw dëgtal leen kàddu yi rek mbokk yi ñëw ak yéen ci jàngat bi. kenn jege njëriñ laa mënu ne amateur kaa waree tal taxas ritel parce que wo ke waroon nañaa moo xotti bekk jikti rokno jomto jegkirota o boobu doon doonta xasrel kene koy refate fula refate fayda voilà mu ngi noonu kàddu yi nga xam ne nii monsieur le ministre Matar Ba moo ko rotaloon ci ay jamono Euh, vidéo bi nag ñuy jaajëfal waa Lutte TV yi nga xam ne ni ñoom ñoo ko filmé donc euh, mu nekk seen euh, seen seen production ñu leen ci jaajëfal bu baax a baax a baax a baax mu nekkoon ci benn ndaje moo xamante ni Matar Ba moom moo daje woon ak axlu làmb buñ ne axlu làmb nag duñ ci bedd kenn muy amateurs yi supporters yi ñépp ci bokk yem waaye axlu làmb bi nga xam ne moom la Matar Ba euh, dalaloon mooy association des amateurs de lutte ndax euh, presque période boobu ñu ngi nekkoon ci xiiroog ngaayoo ci xaajalikoo ba kenn xamatul lan lay nirool fu ne waaye fexe fa euh, jéem a créer sa association wala indi ay polémique loolee moom moo waroon monsieur le ministre Matar Ba créer benn ndaje ngir waxtaan ak ñoom ñu booloo nekk benn comme ni mu ko defee ci kuréel yu baree bari yoo xam ne réeroo woon nañu vidéo bi nag mbokk yi jur coow. li tax mu jur coow mooy bu ngeen xoolee ci confrance de presse bi nga xam ne moom la ñu jóge bu yàggul te euh, association des lutteurs en activité organisé woon ko ci boobee ci la ñu gis lu baree baree baree baree bari ci ay mbër di ko def statut lu bari ci ay amateur di ko def statut ñu bari aussi ci ñi nga xam ne ni ñu ngi ci làmb di ko def statut te la ñuy wax ca ginnaaw mooy Matar Ba bëggut làmb parce que kàddu yi nga xam ne ni yëkkati na ko muy ay kàddu yu ñaaw kàddu yi lan la mbokk yi dégg nañ ko sànq. mooy bu ngeen déggee li Matar Ba wax ci séeréer mooy jël sa xaalis dugg ci làmb te waroon koo yóbbu feneen loolu ay caaxaan la coupure boobu moom la nit ñi jël utiliser ko def ko comme si Matar Ba day ŋàññi làmb wala bëggut làmb mu bëgg nag ñu def ci taxaw seetlu ndax tey même bu fekkoon ne monsieur le ministre bëggut làmb wala bu fekkoon ne ku bëggut làmb la kuy jëw làmb la am naa yaakaar ne du ko jëwee Lutte TV bi nga xam ne nii làmb rek lay défendre parce que Lutte TV bañ nañ ko ba ne Lutte TV lépp loo xam ne nii luy suqali làmb la lépp loo xam ne lu jëmal làmb kanam la bu ngeen fa demee da ngeen fa gis micro Lutte TV wala bu ngeen duggee ci seen Lutte TV dingeen gis vidéo bi donc ñooñu booy jëw làmb ba yegsi ci ñoom am naa yaakaar ne ñoom seen jëmm bopp ñooy njëkk a jëflanteeg yow wala bu fekkee ñoom ñoo ko filmé duñu ko wane muy benn ñaareel ba mooy kan la ñu jiiñ ne moom mooy jëw làmb mooy Matar bu ministre des sports loolu mën naa ne bu ngeen xoolee rek ci cohérence dañ naan c'est pas cohérent àndut dëppoowul ki nga xam ne nii moom moo yor sport bi nga xam ne sport bu ci mën di am ndam muy football muy baske muy handball muy rugby ba ci làmb lu ci mën di am ndam rek moom moo réussir mission kooku xalaatul bañ sport bu mu ci mën di nekk ci biir sport yi xalaatu ko ndax moom défendre sport bi moo ko fi tax a nekk bilan mooy lan mooy sport bu ci nekk bi mu koy jël fi mu la fekk mu yóbbu la foo xamante ne nii kawe na njortam ñetteel ba mooy Matar Ba mi nga xam ne moom la ñu jéñ ne moo doon jëw làmb fan la ko doon jëwee foo xamante nii ñoom du jànjee ko ñu nga fa foo xamante nii ay amateuru làmb ñoo fa daje foo xam ne nii ay acteuru làmb ñoo fa nekk am naa yaakaar ne mbokk yi bu ñu doon jëw làmb ba gis du Diagne Diecko ak li muy xeexal làmb ak li muy représenté ci làmb ku ko mën di def ba gis Doudou Diagne Diecko da nga tëj sa gémmiñ donc bu ñu xoolee rek ñett yooyu ñetti éléments yooyu yi nga xam ne ñoo réew yi réunir ci milieu bi danañ xam ne foofu noonu amul kenn ku bañ làmb ko fa nekk rawatina nag ñu fay jéem a jëw làmb ba di ko jëw ci séeréer Matar Ba aussi bu ñu ko jëlee en tant qu'une personne mu ngi juddoo Fatick wala mu ngi dëkk Fatick bokk nekk koo xamante ni tey ñu bëri xam nañ Fatick li muy représenté ci làmb tey làmb bu nekkoon bu nekkoon benn dëkk làmb bu nekkoon pays dañuy naan Fatick moom mooy capitale bi parce que xool leen waxoon naa ko la fois passée drapeau du chef de l'État Fatick li mu ko jël amul benn région bu ko jël lu lu tolloog li ko Fatick jël muy benn ñaareel bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy gravité autour de la lutte muy promoteur muy amateur muy mbër muy manager xool leen li ci Fatick di représenté ci poids amul benn région bu koy représenté ci poids beneen bi mooy lutte bi nga xamante ni moom la ñu moom la ñu faral di promouvoir ci ci ci gox-goxaan yi muy la lutte simple bu ngeen xoolee la région de Fatick li mu ciy organisé par an amul benn région bu koy organisé à part bi nga xam ne presque moom la ñuy moom lay xaw a diirool mbagg donc Fatick mën naa ne. amul ku fay yeewoo koo xamante ne nii bañ nga làmb wala da ko bañ di ko fësal ci ay média beneen bi ci topp mooy sunu ministre de sport bi nga xam ne bañ nañu ko ba ku koy ku ko bëgg a ku ko bëgg xas wala nga bëgg ko du ma ne xas sax ndax dafa ñaaw mais ku ko bëgg a tooñ da euh, da nga li nga koy reproché mooy le ministre de la lutte loolu nga koy wax. tout récemment gis nañ jafe-jafe yi nga xam ne làmb tolloon na ci wala toll na ci depuis 2012. mu nekk ci ay jafe-jafe yu méttee méttee métti ba léegi nii bu xiiroog ŋaayoo yu métti amut c'est grâce à le ministre Matar Ba ci intervention yi nga xam ne mu ngi koy def ci lëkkaloo gi nga xam ne mu ngi koy lëkkaloog acteur yi dalal gi nga xam ne mu ngi leen di dalal di waxtaan ak ñoom di saafante ñoom di liggéey ak ñoom donc kooku am na liggéey bu am solo bu mu ciy def mais aussi ci magistère am bu ñu fàtte ci la ñu samp li nga xamante ni moom mooy arène nationale def ci ay milliards yu baree baree baree bare nañu xoolaat bu baax contexte yi nañu xoolaat bu baax jamono yi mais aussi nañu xoolaat bu baax nit ki ana lan la koy reprocher sunu borom rek mooy matal amul kenn koo xam ne nii mën ngaa matale ci sa gestion amul ku dul suñu borom subhaanahu wa taala donc du ñàkk ay rëkk-rëkk yoo xamante ni dana am ci gestion nit mais li ñu gisagum ci liggéey boo xam ne nii Matar Ba liggéey na ko ci làmb benn ministre lañ gisagum boo xam ne nii liggéey na ko ci làmb ku mel noonu muy Abdoulaye Makhtar Diop. donc ñaar ñooñu mën nañ ne li ñu liggéey ci làmb ak fi ñu jëlee làmb ak fa ko yóbbu très franchement am na ay jéego donc bu ñuy reprocher Matar Ba que dafa bañ làmb wala bëggut làmb wala day dellu làmb ginnaaw bu boobaa ñun ñi nga xam ne ñun ay acteuru làmb lañ war nañoo taxaw nag xoolaat bu baax ñun ñooy ñan est-ce que kàddu yooyu war na jóge ci ñun wala déet bu dee mbër mooy yëkkati kàddu yooyu est-ce que kàddu yooyu war na jóge ci moom. bu fekkee ne aussi amateur wala keneen mooy yëkkati kàddu yooyu est-ce que kàddu yooyu war na jóge ci moom beneen bi mooy ñun bu ñu jàppee ay dof ñu bëgg a def suñu bopp ay dof information saa yu ñu ko ñu ko joxee wala élément saa yu ñu ko joxee li gën mooy ñu xool élément bi tàmbali ba ba ca njeexantal ba ba mën a xam lii lan moo ko yëkkati lan mooy sabab bi ndaxte tey kàddu yi nga xam ne nii Matar bi mu ngi ko yëkkati ci vidéo yi bu ngeen dégloo tàmbali bi ba fi muy jeexee. lan lay wax. xam nga incompréhension non attends je ferme fermer cette parenthèse parce que sa ne sert à rien su fekkoon ne man dama leen topp ci ku nekk mer rek def sa association du ma leen recevoir mais je reçois tout le monde mais damay liggéey pour arrêter éclatement structure yi làmb ji. parce que bu fekkee ne foo demee élection ñu mer rek nga ànd ak say nit créer bu boobaa yéen yéenay perte sax parce que tey bu ma bëggoon a génnee subvention jox leen ko dootuma ko mën. parce que léegi ñeneen taxaw ne man tam association la kenn jege njëriñ laa manu ne amateur ka waree tal ma taxasri parce que wo ke waroon nañaamo xotin ɓek jiktina paas rok no njom jeg kilo ta o derem boobu doon taxasrel kene koy refate fula refate fayda ah kene kene ga um den fe xaƴa ko kiin ko xasra no ka jegoona tig boog nda xasra no ka andoona yee jege jege jege xoox jege parce que nun foofu foog nu ndef Tiggé refee affaire wolof foo séeréer sax Tiggé affaire o kiin fo o kiin o kendumo parce que xano ga oxa andoona yee nu mbogee xeet nu mbogee dara ka ta waaganonga mbogtoona xeet sax mbaagirandirango ten roog na fokata wiin njom ne koy mi kam foog teen o kiin waagiraam o sut no njom ne parce que njom o kiin na buganan xooxum njom Sénégal xu buguna teen fogo kiin waagiraam o foog sut ɗomi koy o a waago naxaam no football den na njom o kiin waagiraamo nax teen parce que kam miñ teen geno jaxaw fuɗooku mbapat ke an ne na no kiina maafritel waagim njom nda anaam na maafritel donc we ande kene o leŋ jegiran in fop in mbogun nda fop no tedanga war ref parce que a sumanga in fop i nget kon koy a buɓanga yit fat i cooxir cer foofee lay waxee mais waxul ne làmb amul njariñ waxul ne jël sa xaalis dagg ko biyee ñëw làmb amul njariñ monsieur ministre Matar Ba mësul yëkkati kàddu yu mel nii te du ko mës a yëkkati ñun sénégalais nag ñun ñoo baaxoo saa yu nit waxee dara rek ñu xool wax ji nga xam ne moom lañ ci moom moo ñu ci intéressé ñu dagg ko ngir mettre ko en mal ak le public loolu nag nañ ci bàyyi xel bu baax ku ñu envoyé vidéo ngir yàlla li laay war a suuli jëlal vidéo bi la envoyé fan la tàmbale waa ji wax ji fan la ko commencé fan la ko jeexale lii est-ce que exemple la woon wala est-ce que nangam wala est-ce la par exemple sama confrère yi nga xam ne ñoo ma jox vidéo bi muy waa Lutte TV tey bu ma doon waxtaan ak Baye Jili ma ne ko Baye jiile euh, Lamine Seck de wala Boucar Ndour wala Mouhamed Dieng bu Lutte TV ñoo ma jox vidéo bi waaye ñoom bu ma nee Basiru bëggul Lutte TV war nga ma xoolaat beneen bët wala nga ne ma. yow de euh, doo nit wala seytaane nga léegi kàddu yooyu par exemple ma yëkkati ko à titre d' exemple pour mën a expliquer Djily relation bi ma bi ma am ak Waly TV léegi jiili kebe jël wax ji dagg ci benn parti bi may wax naan man Basirou bëgguma Lutte TV mu jël parti boobu kese parce que moo ko intéressé parce que dafa bëgg yàq mu envoyé ko Lamine Seck wala mu envoyé ko Mouhamed Dieng wala mu envoyé ko Boucar Ndour wala mu envoyé ko euh, Pape Ndiaye ne ko dégg nga bas nee na bëggul Lutte TV bu boobaa day jur ay coow alors que wax ji fa mu tàmbalee ba fi mu jeexee bu ko Pape Ndiaye déglu woon wala Lamine déglu ko wala Mouhamed déglu ko wala Boucar déglu ko dana ne non kii pour pourtant wax ju rafet lay wax ci ñun donc nañ xoolaat li nga xam ne nii moom mooy doxal làmb ñu koy teg ci kanam pas ñuy jël ay nit rek hasardeusement naan noo diw bëggut làmb diw daa bañ làmb diw daa day def nii làmb surtout ñin ñi nga xam ne ay acteurs lañu dañu war a doxal làmb que ça soit muy mbër. que ça muy reporter de lutte que ça soit muy manager wala muy amateur wala muy promoteur comme ci mën di nekk saa yoo jëlee discours di wax ci làmb rek waxal luy defar te bañ wax luy yàq. donc mbokk yi lii dafa nekkoon jàngat boo xam ne nii bëggoon nañu ñëw ñu donte du du du yàgg sax mais leeral ko pour nit ñi xam vidéo bi lan moo ko waraloon donc video bi nga xam ne ñu ngi koy dugal saa su nekk yenn mbëri di ko def statut te ñàkk xam waral ko wala ñu jàpp ne kii dafa bañ làmb ba da doon jëw làmb dama bëgg ñu yeewu xam ne video boobu li ci mataar Ba wax buñ ko déglu dégloo en intégralité danañ xam ne vraiment kii doxul ci luy yàq làmb te doxul ci luy ñagasal làmb fépp foo xam ne nii euh, mën naa ne scission am na fa ci làmb ci ay kuréel yoo xam ne dañoo tas mu ngi leen di dajale. fas yéene leen a booloo ñu doon benn ngir làmb mën a développé kon kooku mënuñu lu dul di ko delloo njukkal ci liggéey bu xa bi nga xam ne nii mu ngi koy liggéey ci làmb ci jëf yu rafet yi nga xam ne mu ngi koy jëf ci làmb mbokk yi cant ak ngërëm ñeel na leen ñu ngi leen di jaajëfal ba ëllëg incha allah dina ñëwaat ak yéen ci yeneen xew-xew parce que fan yi gis ngeen coow li bari na diggante CNG ak euh, président yi euh, wala responsable écurie yi euh, mbër yi nga xam ne aussi ñu ngi yuuxu ñu ngi ñaxtu ci naka la ñuy def ba ubbi saison bi loolu yëpp mbokk yi ay jàngat la yoo xam ne danañ ci ñëw te ñu gën a yaatoo cant ngërëm ñeel na leen ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci yeneen xew-xew jërë ngeen jëf.